assalamu alaykum en fait euh, ñun katou toy Fort ñun ñoo leen woon tay pour voir les euh, conditions yi non seulement conditions yi mais euh, politique bi nga si entreprise bi ñuy la def bon trop trop tom bon trop ci jeunesse bu Sénégal di xamal ni entreprise bi amul lo xamni si ñun joxuñu ko entreprise bi jël parce que karo yi ñuy defar suuf si fi leen koy jëlee Sénégal entreprise bi jël na sun souf ci benen côté moy terrain yi nga xam si mom lañ leen jox mu nek ay hectares yu bari mais yamuñ ci lolu après dañu jël ay doomu sénégalais dañu jël ay doomu sénégalais wax état bi ñom bi paré dañu wax état bi ni dañu créer ay emploi ay emploi parce que lolu mom mo doon rôle principal bi nga xam si mom mo tax man japp na ni état bi mo taxone ñu bàyyi Touay Fort samp fii mais 3000 employés lan waxone 3000 employés lan waxone mais tay bo xolé ñun ñëpp 800 personnes lan non seulement 800 personnes lan c'est parce que fi ñaar warona a liggéey fii ci entreprise bi fu ñaar warona a liggéey benn nit mo fay liggéey mais yamuñu ci lolu tay yakarna li xew Twyford amul ci Sénégal pour man amul sax ci Afrique jàpp leen ni traite négrière amaat na fi ni amaat na fi fi Afrique fi ni te Twyford la parce que li tax ma wax lolu moy li tax ma wax lolu moy non seulement 12 heures de temps lañ doon liggéey mais tay bo ñëwee ci ngone gi ngone gi tay dañuy def rotation 12 heures 12 heures mais rotation ngone bi 18 heures et demi la dugg wàcc 7 heures et demi lolu 13 heures de temps sans pause c'est-à-dire tay élément yi liggéey fi dañuy taxaw di liggéey dañuy taxaw di liggéey duñu lekk amuñu jot pour lekk parce que amuñu 2 minutes waaw julli sax pour ñu def ko problème la dañuy dem pour yàkkamte pour julli fi ba paré ñu bolé ci ak chinois yi bolé ci ak chinois yi yab ñu chinois yi respecté wuñ ñu en fait ñom suñ développement développement entreprise bi ñun ñoko yor mais jege sax duñ la ko bëgg def jege c'est parce que nit ku ñuur nga bu ñuy wax ak yow dañuy wax ak yow nu leen nexé té pourtant ay doomu sénégalais ñoo fi nekk di fi liggéey dafa melni comme si ñun dañ créer Chine biir Sénégal mu melni autorité yi man dama naan xam nan li xew mais dañ cay deug sen tank raison bi tax ñu dëgg sen tank tamit ñun bëgg nañ ko xam déjà entreprise bu toll ne Twyford nekk convention convention BTP la ñuy liggéey té ñëpp xam nañ ni carrière et mine la ñu jël convention bobu noonu Sénégal gëpp xam ko ay autorité nek fi fini nii ñi nga xam si ñooy ay préfet ay ay maire yi nek fii nii koñ bi ni ni nek ci gox bi ni li ni ñu waruñu ko seetaan pourquoi ñom ñu nangu ay doomu sénégalais nek fenn di fa liggéey

def nañ arrêt deux jours pour l'instant une prime de transport entreprise bi ñoom ñoo jël département euh, département xam si direction ci lan ñu prime de transport on dirait que ni ñoom lan respecté nous ñooy ñooy ñooy usine production bi nga xam si ñun ñoo ñun nekk produits chimiques parce que bi poussière nit ñi di accidenté gis nga mën nañ leen a après image yi image yi nga xam si ñii seen loxo day dagg image yi nga xam ne si ñii seen bët dafa yàqu ñu yóbbu ba principal prime de risque prime de risque sax jox ñu ñu ko bi fi inspecteur ñëwee ban waxtaan ak moom ba pare fin ñoom euh, ban lay lan am inspecteur ñëw na bëggoon nañ ñu boole ak inspecteur du travail parce que neen doona war a arrêté liggéey bi loolu moo leen soxal ñoom dañuy am seen i millions di encaisser seen i millions après ñii moom ay ay ay nègre lan rek nan dee

ñun dañuy sax tudd ñaat fay xam nga ay fay ay 85.000. 85.000, ah? ay ah? ay moins de 100.000. mille moins de 100.000 mille fay ci si heures de temps sans pause dañ wara def heures 12 heures mais puisque bi bi bi dañ ni bi heures.

mais au contraire seen menace xam nga lan la bu ngeen taxawé baña liggéey ñu dàq ñëpp légui nak loolu lañuy xaar dañuy xool xaar ba xam Sénégal fi ni ba xam ñun ay sénégalais lan wala ñun fan lañ dëkk wala danoo bokku ci réew mi wala lan ba chinois yi war a jóge fenn ñëw def fi usine bi fii ñi am diplôme sax chinois yi ñi am diplôme sax dañ leen di sepp di leen génne soxlawuñ soxlawuñ borom xel ñoom soxlawuñ borom xel tey boo xoolee ñi ci kaw quelques personnes ñoom ñoo am diplôme liñ bëgg moom mooy ki nga xam si amul diplôme xamul ay droit am pour ñu mën koo liggéeyloo boole koog manque de respect boo xam si kenn xamul fii dama yaakaar ni ñun man dama yaakaar ni ñun est-ce que am nan ñun est-ce que am nan ay njiit ñun est réew mi am nan ay njiit léegi est-ce que ñun am nan ñoo xam si tey buñ sonnee ñoo ñu war a wallu loolu daal en loolu loolu loolu la ñuy dund li ñuy dund c'est catastrophique